Euh, léegi nii moomoo euh, lan naka nga jàngatee jafe-jafe yi nga xamante ne ni bii ñu ngi koy dund euh, pas mal d'entreprises même da nga ciy dégg ñoo xamante ne dañuy génn di ñaxtu di yuuxu te auparavant daanoo ko dégg loo ci jàngat yow. non man damay damay am lu ma métti sax su may dégg ñu naan presse sénégalaise nañu wax patron de presse yi. parce man dama jàpp ñu leen dal instant bi ñoom ñoo ko teg seen bopp. parce que euh, tey nag euh, bu fekkente ni fii agsi nañu fii mm. c'est parce que ñoom ñu am loo xam ne prévoir ñu ko woon. Mm-hmm. Euh, bu fekkee en ce qui les journalistes moom ñoom moom mosuñu. Euh, gis seen bopp ci ci ci ci yëf yi ba ci ba ba ci nekk jafe-jafe ba ci am jafe-jafe ñàkk am jafe-jafe naa kay nga xam ne instant bi dañu am ay arriéré de de salaire ak ay retard yoo xamante ni si nii tax na euh, ñenn ñi ñu ngay yuuxoo ko kebatu mais ak lu ci manti am man euh, dama ay jàpp ni xam nga damay dégg ñu naan. Mhm. dañu dañu dagg convention yëpp. loolu pour man seen une parce que du convention yëpp la gars yi même l'ONAS mhm. liste bu mu publier. waaw le membre de convention yëpp convention yëpp la arrêté de. am nañu am na ñoo xam ne mais man man am na ñu ma xam ñoo xam ne am nañu convention ak LONASE te LONASE daggu ko carrément léegi nag ñee nga xam ne dañu leen publier muy nga gis ñenn ñi nga xamante ni si ni tey yow danga naan ñii. moom daf leen leer que ne lii moo taxoon ñoom ñu toog seen ay médias di saaga ak di insulter Ousmane Sonko. Mm-hmm. midi matin soir. kon ndeke dañu lay wutul ay convention ci loo xamante ni si ni teguwul benn yoon waruñu ko am. parce que amuñu benn reconnaissance beneen bi ci des nag mooy bi ci ñëw doole ko ci mooy ñu suspendre convention yi. Mm-hmm. boobu nag ci lay entreprise de presse yi nga xam dañu leen di ci la ñuy soogay duggee maanaam dagguñu ko mais dañ ko suspendre. loolu la mhm. premier ministre santaane ñee nga xam ne dañ ko amoon te jaarut woon yoon la ñu dagg tàppit moom mooy ñu leen sax ñuy noyyi wala di naan ndox mhm. dañu ko dagg ñi nga xam ne nag am nañ ko mais euh, am nañ ko ci anam gu jaar yoon moom dañ ko suspendre en attendant ñu xool ñoom itam ci yan anam la ñu ko amee mhm. parce que tamit convention du ngay ñëw rek amee ko nii wala ñu joxe ko nii parce que da ngay gis koo xamante ni si ni télévision wala seenam ñetti nit yu baax sax ko seetaan ñu defaral ko xaatimal ko convention euh, cinquante millions ci kaw télévision boo xamante ni si nii daf lay wóor ni wala presse en ligne boo xam ne moo ko ëpp audience suuf ay 10 millions ak 15 millions xam ne loolu itam jaarul mhm. jaarul yoon moo tax ma jàpp ni loolu moom moo tax ñu suspendre li nga xam ni moom moo di convention gi nga patron patron de presse yi nii mhm. li nga xam ni dañ ko amoon parce ñoom seen ay employés ak naka la ñuy def ba métier bi seen ay entreprise nekk loo xam ni dafay viable intéressé wu woon ñoom yaakaaroon nañu ne li am ci nguur gi saa su ne ñoom mosuñu xalaat ni rupture dana am ñoom jàppoon nañu ne gouvernement parce que ñoom dañoo jàppoon ni amul benn njiit boo xam ne mën nga fi ñëw kilin kilin boo xamante ni si ni ba bu ñu la bindalee yow doo patiner wala doo tiit ba doo dem waxtaan ak ñoom président Macky Sall bi mi soo ngay ñëw fii. moom lan la fi waxoon bu jàkkaarloo ak Abdou Latif Coulibaly boroom xalima gu ñaaw gi ki nga xam ne bu mosaan a bind. Mhm. politiciens yëpp tiit. ce qui veut dire que ñoom dañu amoon ay journalistes yoo xam dañ leen a dañ leen dañ leen tere woon a nelaw. Mhm. dañu dañ leen am loo xam dañ leen ko xamal loo xamante ni si ni bëgguñu ñu ci jël seen xalima di ko ci bind. loolu nag tey boo jëlee kaw président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko mais ñooñu nga xam ne mosuñu dugg ci nguur. mësuñu sàcc xaalisu askan bi mësuñu jël dërëmu kenn mosoo leen a xamal dara lenn loo mas a xam maanaam waxuma sax loo xam mais da nga dem sax ba mujj inventé loo xalaat ci lu ñaw loo mën a teg ci jaram créé nga ko bind ko. te mhm. teewul bu xëyee nit ñi di ko gën a bëgg. te la nga bëggoon wala la nga bëggoon ci moom mu bañ am suñ mhm. borom dogal na ko. kooku lan nga mënati ci moom moo tax ma jàpp ni tey euh, euh, ñoom dañu xam ni nag instant bi caaxaan faaxee. ñu xam ka ni nag euh, fi nga xam ne buntu yi nga xam ne mënoon nañ fa jaar yëpp xëy na pour am état bi les portes sont fermées. Mhm. parce que ñii dañu ñëw clean set wecc mooy ñu leen fenn foo xam ni mën nañu fa jaar dañu ñëw ñi leen eh ñun nañu jaar ci yoon yéen ngeen jaar ci yoon bu ko defee réew mi mën a dox. su ngeen jaaru ci yoon yoon yoon dafay daal seen kaw ñun tamit suñu jaaru ci yoon mais yoon ngeen seen xalima ak seen i rajo ngeen mën a bind su ko defee mën a wax mais yow mm-hmm. ni moo tax puisque nag xam nañu loolu te ñoom mosuñu woon a xalaat ni rupture bii ni dana lu lu bett nag mën la olof Njaay daf koy faral di wax moo tax fi ne nii Macky Sall jóge fi un mois nga dégg ñu ni am na entreprise de presse boo xamante ne si ña fay liggéey jotuñu seen salaire deux mois jotuñu trois mois ba quatre mois mënuñoo jot li nga xam ne moom moo di seen ay salaire mm-hmm. mais mais mais le mbir mi nekk lu automatique man loolu moo ma jaaxal quoi. Mm-hmm. ndax man dama man est-ce que dama jàpp ni yenn entreprise de presse ñoom bu weer daan dee. dañu daan dem ci genn kees wala keesu état goo xam ne dañu fa daan dem di fa tibb di fay seen ay salariés. Mhm. wala je sais lu xew ba euh, mbir mi nekk loo xamante ni si ni c'est c'est c'est quand automatique ma loolu <laughs> loolu jaaxal na ma moo tax ma ni mhm. euh, tey gis nga publicité de publicité de l'état yeeg convention yeeg yooyu yëpp baax na c'est bon lu état bi war a jox entreprise de presse yi la mhm. mais nañu ko xoolaat teg ko ci yoon te man damay partager ak li Moustapha Diop Walf wax gis nga mbir mi na am transparence mm-hmm. na lépp di tege ci yoon mm-hmm. journaliste yi mais patron de presse yi bu doon ñoom kese mais sénégalais yi duñ xam lu xew ci réew mi mm-hmm. bon euh, investir nañu nag mais journaliste yi ñoom ñooy dem vers information jël ko traité ko Euh, jox ko askan wi ngay xam ni tey ñoom ñoo ñuy seetaan ñoom ñoo ñuy bàyyi xel. Mhm. loolu par pour man ñooñu noonu dafa nekk ñi nga xamante ni si ni dañ leen war a bàyyi xel mais yow déjà gisuñu seen bopp. ci convention yi nga xam ni euh, yéen koy am ci ci ci yenn direction yi. ak mhm. euh, ministères yi. Euh, publicité publicité yi mais nga teg ci yow li ngay comp ci sa salaire pour yóbbu ko ci gafak ak état. ak si mhm. presse bi nga xam ne tey bu retraité dina am ci lu mu mën a jafandiku yow nga bu ko jël dugal ko sa poche ak sa njaboot. ba pare ne kenn du ko fi waxee kenn du la ko laaj. Mhm. au nom de quoi. nañu waxante dëgg il faut loolu ngeen joxe ko ci naka ngeen koy joxe ak yenn anam ngeen koy joxe il faut ngeen joxe ko. te mhm. ñoom sànq maa ngi koy wax wallaay dañu dañu dañu am waxukaay di wax rek mais du entreprise de presse yi ñoom ñooy souffrir toutes les entreprises yi nga xamante ne si ne ñoom conforme woon conforme woon ak li nga xam ne moo di fisc bi. instant mhm. bii nii gars yi muy leen dara. non deux s deux s waaw waaw moom seen boo xam ne mhm. moom bi ñu ko laajee moom dem na fay ba pare ni gars yi dem leen ngeen fay parce que moom am na lu mu doon xëy na prévoir mhm. mais tey mais yeneen entreprise yi nga xam ne ñu ngi fi te nekkuñu ci ci secteur presse bi mais mhm. ñooñu noonu Woodside bii c'est une entreprise étrangère mhm. gars yi yërëmuñ ko ci dara quarante et quarante yooyu daf koy fay. Mhm. première bet bii nii dafay fay douze milliards yi wala dina am problème bu ma du ci kaso bi la nar a ak ak ak ak ak ah. yeneen i entreprise de presse yoo xamante ni si bi euh, redressé mhm. a waxee moo tax am problème fii nii ci réew mi wala ñoom la fisc bi bindal fi mu nii alors que mhm. demeewul noonu moo tax ma jàpp ni il faut que tamit ñuy ñuy waxante ñuy waxante dëgg d'accord ñun ci secteur bi la ñuy yëngu ci la ñuy dund tey bu secteur bi deewee ñun ñëpp ñun ñooy ñun ñooy ñu di mhm. waaye di mais yaakaar naa que ni tamit du parce que man li ma gëm mooy ñiy dëkkuñu fi pour rey Euh, presse bi. man loolu mhm. loolu laa gëm dañu ñëw pour jubbanti daf ci am loo xamante ni si ne gisoon nañu ne jaarut woon yoon ñu ñëw pour yëf yi jaar yoon man yaakaar naa que ni léegi nag ñoom bu fekkente ne ay républicain lañ. Mhm. mooy li ñu woote dañu war a jàppale ñii euh, ci euh, jubbanti ba réew mi jubbantiku incha allah. Mhm. am na solo ba tey ci mbirum Walfadjri ndax gis nañ daal di nañu doy posté ni ki baax ci démb ci seen biir site di wax li nga xamante ni bii moom nekk di dund muy jafe